Assalamu alaikum, wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu auditoire bi ñi fi teew euh, ñu coalition Diomaye président Tambaleti, ci coordonnateur de cellule yi ci coordination coordinateur départemental. yi euh, les partis alliés et les mouvements yi nga coalition bi def liggéey ginnaaw ba ñu gërëmee ñëpp ñu nga xamante ne jàpp nañ ci coalition bi euh, journée tey bi journée évaluation la woon ñu toog xool fi ñu jaar ak quel moyen lañ ko defee ak lan lañ ci jànkanteel boole tënk ko xam a ah, tey jii kat ndam lii ñu am euh, ban leçon lañ ci mun a jàng te loolu yëpp jàngat nañ ko tey ginnaaw loolu.

ba nga xamante ne population bi yàkkamte woon nañ jële ko fii suñu équipe nag li jële ci coordonnateur yi nekk ci dëkk dëkkaan yi ñu toll ni vingt 67 villages ak 40 hameaux bu ci nekk euh, coordination bi ak euh, groupe campagne bi taxaw na fa wax li jëm ci programme bi Diomaye président andi ba mu mujjee ci ndam lu rëy a rëy ndam loolu itam delloo nañ ko population Diobass xam ne ñoom ñoo ko liggéey seen ndam la ñoom leen ciy gërëm di leen sant di doon xaar itam ñu def dëkk bu nekk taxaw gërëm leen sant leen mais yoo euh, xat-xat bi ak euh, ci wàllu finance mayuñu ñu mun koo def donc nañ ko jëlee fii ñu koy defee ci tere ñu xamee ne gërëm nañ ku nekk sant nañ ku nekk ci changement bi ñu bëgg itam am nañ ci yaqin ne suñu coalition bi ak président Diomaye dina ko mëtal ginnaaw ngërëm boobu Jobaas ci boppam am na ay difficulté boppam ay coonoy boppam yi nga xamante ne mu li ci njëkk mooy suñu suuf suñu suuf bi nga xamante ne menaces yi bëri nañ ci parce que suñu position géographique et stratégique bi nga xamante ne ñoo ngi diggante Thiès ak Mbour moo waral ku nekk teg nañu bët. léegi nag protection bi ci war mooy gouvernance local teg ci loxo jàppale paysans yi mais loolu defuñu ko ñu bëri ñoo ngi ñëw di tibb di yóbbu ñenn ñi am seen xaalis di jënd. paysans les paysans sont laissés à eux-mêmes paysans yi béykat yi dañ leen war encadrer jàppale leen ba nga xamante ne li leen gën a cher muy seen suuf ñu mun koo sàmm aar ko ba nga xamante bu ëllëgee seen sëti du ñëw du ñu am fuñu dal donc Jobaas bu wolo groupe bi niñ ko wolo ci local yi ci présidentiel bi wolo ko ci local bi ay avenir bu leer mu ngi seen kanam té bu soobé yalla

et ne meurt pas du jour au lendemain une coalition a des ambitions te Jobaas fiñu ñu soxla nañ équipe bu bees soxla nañ seen yi dom te seen dom yi taxaw gagné présidentielle bi won population programme mu président doy nañu yaakaar te wóor nañu bolo. bu bolo comme niñu bolo tay bi luñu song donc ñoo ngi ñaan fep fi doomu jobas nek muy société civile ak fo mën a ak sa xam-xam ñëwol jàppale coalition Diomaye président ñu jëm ci ëllëg yu gën a baax ëllëg yoo xam ne dinañ jiital Jobaas ëllëg yoo xamante ne ndam rek ak ëllëgu Jobaas gën a leer jaa ngeen jëf merci beaucoup.